Pour présente le jeune créateur de sa génération Ahmad Cham nek ci route nationale bu wak ngono dem Kaolack après la mosquée d'Angle Islam tout près de Ousmane Sambou gay ku bëgg ci ñëw yu bax yi da ngay o Ahmad ci numéro bi di 77 937 50 83 xalé bi nga xamanteni kum ñawal bo gi nañu laaj la ko la ñawal. ah. daa ñu daal soxla ma tax weer wi ah weer bi day ñëw na ben kese la tey su nekkoon juróom tey su nekkoon juróom dina ma dina nekk luma gënal na xalé kon bi bëgg dina ñu jubbe degg dëgg ndax yàlla ndax jub rek ma am so ma seen dal yëpp amul ki amul ke yëpp ci yoonu siratal mustaqim kese lu mo lu mo ñor la moom nan laay defar yàlla ba moom ma mel a ah, yàlla baax na maa ngi jéem a yokk ñaan rek waajur yi de moom bu baax la nii man damaa seetlu ñoom ñëpp seen waajur dañoo baax ah yàlla baax na mën naa am dina ma may xam-xam ak xel mu sell boo xamante ne dinaa leen mën a orienté loolu mooy sama ngeneen ma mooy sama seen man damaa wóor. boo ma yow lii lii la yow naa wóor. waaye mu ngi yow yow naa wóor. man fi mu ne wóor bu baax mi nag. lii lay. parce que yow naa wóor rek yow naa wóor rek. boo xam ne moom heure bii man naa wóor man sax. man dama laa gis ko. na ci am ah dëgg la dëgg la. waaw xam nga man tamit dama laa mel woon waaye xam nga man man bu ma di leen mere quoi yow man sama doom. sama jaay dina ko def loolu loolu loolu yow muy mu di leen mere waaye yow ma ne loolu dama di waaw loolu ma ne. comme lan moom yow nga ñëw tëjlu bi nag bàyyi ko noonu la dem tëjlu bi ne la guddi gi nag maa ngi ay on la di xëy na julli dama doon woo. ah maa ngi yoroon foofu xaalis la nekk nii. saa yi boo yoroo leen. yoroo leen eh, man bu leen nañu dégg omelette man ay daa mel ni Modou Modou ma nii. waaw moom moom ñeenti weer yi dama ko xamee. loolu mooy lii. après dinaa wax ko tey dafa tamit damaa ko bëgg xaalis jaww ji après dinaa wax ko waaw man loolu moom. ay yooyu génn si yooyu. amul loolu amul waaye nag dégg nga loolu après ah, waaw lan xamaa la wala lan xamaa la may fay. waaw naa la fay ah, mais tey lan lañ war a ñëw ko. waaw ay ñoom tuum naa bëgg tey. yaa ko xam ne. yaa ngi dégg de xanaa ngaa yor fay. dëgg la man bu la nekkee déedéet am na. maa ngi leen ko la financé. mu bokk nga ma xeebe. Ah, ma yow génnoo di yow yow liggéeyoo di. قد وبين قفتين بين قفتين كيف العمل؟ كيف العمل؟ الذين يؤمنون ويؤمنون بايل با بوكو داغي 500000 de dama yu ko jox ni bo xam yu xam yow neena la man yow lo li dem wér mo li dem ko minute mané bokku bokku man duma ñand mo wér boko jëw na na na na waaw mais nag. waaye ñun dafa ñëw. dina laa def. déedéet mu ko laal. julli nag. lay la julli ndaw. lay la ah bër ngeen ndogoo. du ma ko laal ba weer bi dee du ma ko laal. xool nag génne bu mag. ne baax na jox la. ak baax ñetteel yoon. ñetteel yoon. déedéet mu ko laal waaye. séeréer la. yow li loolu yow yow yooyu léegi yow ku daan doog loolu kay biir léegi loolu. ah léegi dafa sama ndogu dafay am kaay. waaw man bu nawee ba ndaw. man sañ leen nawee ba ndaw. juróomi junni ndax dana am ba pare. juróom benn ñaar ñett ñeent juróom. juróomi junni la. ba junni. juróomi junni. juróomi junni mën na juróomi juróom dañuy fat. juróom benn fan. yaakaar naa sa ndogu bojo bojo yooyu man dinaa ko def man. man bu wér amul yàlla sama damay traité. day am man ay na bi laal. ndox mi waaye sama nu jëm. bi ginaar gi wala wala daal ginaar. Hmm. kaal yi daal kaal. loolu yëpp xam leen. maa ngi leen di jëm maa ngi leen di jëm maa ngi leen di jëm. alors maa ngi leen di ñeenti junne ngeen di jëm. demee sama bi yoruma fu ma yoroon fay la. yaa ngi nii. waaw léegi li ma yoral léegi li ma yoral yow léegi jël nga jëlee juróomi junne. li ma yoral. li ma yoral yoonu ma baawoo yow maa ngi nii. te loo waay yow kay dëkk bi la dëkk yow doo yow. tey dama leen si dama leen doole tey nu ma ne laay def fii tey nu ma ne laay def te yor na xoolal nii yëpp alal la bokk na lu ne fii. jëlal li nga def si ndogu lu baax. soo ko mënul lañ nga tey sa xaalis. da ngaa neex man neexul ma la de man damaa yor ba léegi wax naa la ko. li xam nga yow dégg ñu ma daan dégg daan dégg daal. dëkk de. waaw man man waa ji ñu sëkk ñu sëkk woon. Eh, génn na si moom déedéet déedéet génn ci waaye ñu jaay daal dañu am oto bi. da koo am. yor na daal moo la ko yor moo la ko yor topp leer ko gisoo ko yow. ah. moom noonu la ko amee. kooku dafa doole bokkut ak yow fu sal déedéet. ah. génn xaalis def saa ñu léegi nag man li ma wax la nag ma ne la wax dëgg yàlla ma ne la. fii gars yi taalibe yi dañuy faral di. taalibe yi sa yoon nekk ci moom da ngay sa lekk boo leen a may nga may am gan riis gan bu ngën. góor la nag mu ngi ko fa leer naa Moodu américain Moodu la nga jëndal sama papa tudd ko Moodu par yàlla dem dem dem. mu jógee ne damay mu ne. waaw yow jox ma kooku man damaa bëgg Moodu Moodu ñu jógee ko Amérique di ay Italie ay Espagne ak yooyu. bu daal xanaa ne woon. yow mi 1970. dëkk maa ngi ko 2002. yow yaa ngi ko yàgg naa yow ban année. 2004 la. yow sama morom càgg na li nga xayma yow école. Ndo. Ndo Guémma. dama doon

ñett jabar yu ñuul la am ak benn bu tubaab la ñett man ak boobu moo gën a loo gisee ko am du dugg si ko am man foo dem lekk waaw man léegi nag ndox ne dëgg fa waaw ndox ne dëgg fa ndox yow gis nga may meleste ko di jéem a dose di def kon bu sama sama dëri yor naa man yor naa demal demal demal demal Mariama man demal